dal di leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko enquête yéen kaay mi desuwaat ci contrôle bi nga xamante ni jamono ji ñuy wax ak yéen bëri na ci ay candidats yu ñuy recalé càmbaraguñ sax seen i dossier yéenekaay bi ne ay piège ay surprise dong nag la ñu gis ca conseil constitutionnel ci ñaari fan yi nga xamante ni commencé nañoo càmbar nag parrainage bi en tout cas ci démb démb la lu tolloog ñaar fukki candidat moom lañ doon càmbar ñaar kase rekk dong nag ñoo ci mujjee mucc ñi ci des ñëpp nag dañ leen a ko xoolaat ci ay signaturam pour mën a mucc bokk ci élection présidentielle yi Alioune Mamadou Dia tamit am na ay parrainage yu mu a mottal yi naka noonu Pape Djibril Fall Serigne Mboup ak yeneen i candidat yoo xamante ni nii fi mu toll nii laa la wax ñu ngi ci gudd gu bët setagul yéenekaay bi ne doublon yi laa la wax mu ngay yàqal na candidat yi fichier boo xamante ne ni kenn mënu ko exploité am ci ay signature yoo xamante ni kenn reconnaître ko lii di ay jaaxle-jaaxle ci conseil constitutionnel yéenekaay bi ne taxaw seetlu jot na ci parrainage yi nga xam ne mi ngi def ay révélation yu rëy nag ci candidat yi candidat ak benn yóbbu nañ seen i dossier ca conseil constitutionnel fekk na joxe ñu nag seen caution yëf yi nag kenn xamul lu muy saf ñàkk respect wala ñàkk xam lay doon est-ce que conseil constitutionnel dafa war a gën a mën a méttil nag mbir yi ngir candidat yi gën a wàññeeku le quotidien yéeni kaay ne danger de fi mu toll nii ci ku mu nekk weesul ndaamal kajoor mi ñuy wax ne mooy chef de l'opposition ndax lu tolloog 8613 doublon la am laa la wax ci parrainage bi war na koo rattraper en 48 heures yéeni kaay bi laajte ni moom ndaamal kajoor lan moo tax mu am jafe-jafe gi et pourtant dul benn yoon dem na ci ay présidentielle mbaa cette fois ci nag duñu ko baare ba du bokk ci élection présidentielle yi en doublon yi bu ko réglewul balaay mooy moom Idrissa Seck du bokk ci élection yi bu dee Alioune Sarr dañ koo mujjee recalé Jean Baptiste Diouf dañ koo mujjee recalé beneen candidat bi ñëpp doon bàyyi xel démb ca conseil constitutionnel weesuwul candidat pur bii di Alioune Mamadou Dia moom itamit parrainage mujjee na koo jéggi candidat du parti de moom Aliou Mamadou Dia mi ñuy duppee le candidat du peuple wax na ni ki démb na ci jafe-jafe askan bi entretien exclusif la yéenekaay bi def ak moom waaye bu nu ko ci kàddoom presque secteur yépp am problème moo xam éducation napp gi mbay mi ba ci transport bi commerce bi moom Aliou Mamadou Dia di xamle ne amul benn secteur benn rek boo xamante ni fi mu toll nii ña cay yëngu sëngee mu ñu ndax ay jafe-jafe yoo xamante ni la ñu nekkee moom Aliou Mamadou Dia jàpp ne mooy solution bi bés bu yoree réew mi lépp lay jaarale ci yoon Sénégal mën a naataange le point actu ne bu nu moytul kay ci élection présidentielle yi ñu jëm benn jigéen du participer ci élection yi ndax ñoom candidat yi nga xamante ni ay soxna lañu ñoom ñëpp nekk fi mu toll nii ci risque li leen ko teg nag weesuwul ñàkk bootu ci ab appareil politique bu dëgër këcc amul kenn ci ñoom koo xam am doole moo koy gunge ci élection présidentielle yi source amam def taxaw seetlu ci candidat yi nga xamante ni dañ leen a recalé ne lim gi laa la wax mu ngay gën a ñii bu ñuy sëngëm ñenn ñi moom ca début ba la ñu xam ne ñoom du ñu jàll sax la wax ci parrainage bi détenu ca caisse de dépôt de consignation administration bi récupéré na lu ëpp milliards millions te jëleewu ko fenn nag fudul ci dépôt caution bi ñoom candidat yi nag képp koo xamante ni dañ la recalé jërikaay bi xamal nañu ne dinañ la remboursé nag sa trente millions bu dee nag ñi nga xamante ni jàll nañu parrainage bi ba noppi conseil constitutionnel validé seen candidature ci élection présidentielle yi ñu jëm ci amul de moom da ñàkk sa caution ba parrainage yu Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye jëlekaay bi tuddee leen ñaari rebelle yoo xamante ni fi mu toll nii bu nu moytuwul ca conseil constitutionnel lañ leen di mujjee bloqué ba matt nag Assome Diatta boo moytul ñoom ñaar ñii dana leen matt la leen doon jikkay moo ñu booloo ngir mën a mucc nag ci waa Benno ko Yaakaar gii ñu reetaan leen en tout cas Cheikh Bamba moom dañ koo mujjee recalé Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moom tamit dañ koo mujjee recalé taxaw seetlu ci candidat bii di Malick Gueye moom d'accordul benn yoon laa la wax ci ni mooy def filtrage bi moo tax ni ki tey jii dana dugal nag recours am des imams ulema wu Sénégal yi mu ngi sàkku ci conseil constitutionnel lu gën a nag mettil na contrôle parrainage bi ngir candidat yi gën a mën a wàññeeku nag ci élection présidentielle yi ñu jëm Vox Populi moom def taxaw ci candidature Karim Meïssa Wade bi nga xam ne bu ñu biir yéenikaay bi am na ci ay chef d'entreprise yu mag ñi nekk ci biir réew meeg bitim réew dañuy fas yéene jàppale Karim Wade ambassadeur ay ingénieur ay professeur ay médecin ñoom ñëpp fi ñu miser moo di ci candidature Karim ndax jàpp nañ ne mooy solution yéenekaay bi na moom Karim Wade nag war na jaar ca conseil constitutionnel démb nag ñaar fukki candidat à la candidature lañ doon càmbar seen parrainage waaye ñaari candidat rekk kase nag ñoo ci mujjee mucc weesul professeur Daouda Ndiaye ak candidat wu parti de l'unité du rassemblement bii di Aliou Mamadou Dia donte am na quelques doublons yu mu a mottali waaye à part ñoom ñaar candidat yi ci des ñoom ñëpp lañ mujjee recalé Ibrahima Lô di mandataire professeur Daouda Ndiaye ba mu génnee ca conseil constitutionnel bañ ko laajee leen rek la xamle mooy logiciel bii def filtrage bi nag amul benn problème képp ku liggéey sérieusement comme ñun ak waa parti pur da nga mucc nag ci parrainage bi yéenekaay bi defaat taxaw seetlu tamit ci candidature Idrissa Seck bi nga xamante ni mu ngi ci danger ndax lu tolloog 8613 doublon la am fi mu toll nii di lu yéeme loo xamante ni ragal nañ ne boo maytul 48 heures moom ndaamal Kajoor nag a régler li ni mel te bu ñu sukkandikoo nag ci mandataire am bii di As Babacar na lii nag nekkul histoire ci ñoom ndax 2019 tamit même situation la ñu dundoon ren sax moo xaw a tane ndaxte amuñu benn pression waaye 2019 nii la demee woon te teewul président Idrissa Seck participé na ci élection présidentielle ya bu dee Cheikh Bara Dolly Mbacké moom jàpp na ne Macky Sall moo ko recalé ndax xam na ne moom rekk kase dong nag mooy danger ci kanamu Amadou Ba bisu tey bii nag am na candidat yu fës yoo xamante ni dañ leen bàyyi xel ca conseil constitutionnel ndax ci la ñuy càmbar nag seen parrainage yéenekaay bi ne Aly Ngouille Ndiaye jaar tey Boun Abdallah Dionne dana jaar tey Karim Meïssa Wade dana jaar tey Malick Gakou dana jaar tey Habib Sy dana jaar tey Souleymane Ndéné Ndiaye dana jaar tey Mamadou Diop Decroix dana fa jaar tey Babacar Diop dana fa jaar tey ak yeneen i candidat yoo xam ne ñu ngi leen di xaar ca conseil constitutionnel l'observateur na ndaamal Kajoor kay moo nekk ci guddi gu bët setagul nombre de doublons yii fi mu nii moo ko bëgg a jommal te lu wértéwul moo di gis nga bu paasewul parrainage bi mooy doo participer ci élection présidentielle yi mooy c'est fini pour moom mënatul a nekk laa la la république du Sénégal ndax dootul bokk ci élection présidentielle moom ndaamal kajoor fi mu tudd ni laa la wax mu ngi ci guddi gu bët setagul info yéene kaay ne kaay ma wax leen surprise yi am démb laa la wax ci conseil constitutionnel yéene bi ne am na ci candidat yoo xam ne échec total la du am amul kenn koo xamante ni logiciel bi bàyyi na la am na ci limu candidat yoo xamante ni nag moom mënatuñoo bokk ci élection yi dañ leen cee génnee nag d'office yéene bi di leen lim ne Mbàkke Sarr dootul bokk Alioune Sarr dootul bokk Amidou Dem dootul bokk Jean Baptiste Diouf dootul dootul bokk Birima Laax dootul bokk ñoom dañ leen a ajourné d'office bu dee Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly donte mu ngay contesté waaye fi mu toll nii dañ koo recalé Cheikh Bamba Dièye nag mooy surprise bi dañ koo mujjee recalé ndax la ma am ci nombre de signature li ci baax matul sax 15000 signature Idrissa Seck Serigne Mboup ak Pape Djibril Fall ñoom fi toll nii dañoo nekk ci sursis ndax li mu signature yu ñu war a mottali fi mu toll nii moo takku te 48 heures dong lañ am pour mottali ko la ñuy indi nag bu ci benn baaxulee rek dañ leen di mujjee recalé yéenekaay bi ne surprise yu démb bi daal moo di professeur Daouda Ndiaye daanaan bi jàlle na nag bi mu des nañu lijjanti ay dossier yem bu dee parti pur moo mënul nekk surprise ndax 2019 tamit nii la demee woon amuñu woon problème mu parrainage laa tribune yéen kaay na ñi am problème mu parrainage kay fi mu toll nii la jooy mooy fichier électoral bi est-ce fiable na yéen kaay bi dem sax bay laajte ñaata fichier électoral nit nga dugal fii nag nekkuñ ci fichier électoral bi lii jar na taxaw seet lu ñu laajte ñaata fichier moo am bu dee njiital gëm sa bopp nag Bougane Gueye Dany moo ngay bàkku ndaxte yàgg naa signalé nag ne fichier électoral bii bu ñu ko lijjantiwul léegi dinañu toroxal ñun waa opposition bi te li ni mel nag mu ngay commencé dessiné wu boo moytul dina bëri ñoo xamante ni duñu bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm le regard ne élection présidentielle yi kay la ñu war a lijjanti mooy ñu fexe ba ñu bañ koo reculer rek bu ñu ko repousser bu ñu ko reporter te bu sukkandikoo ci plateforme bii di FIT Aminata Touré mi ngi xamle ci biir yéene kaay bi ne demande d'annulation décret bi nga xamante ni moo concerné woon nomination membre Sénat yi ñun plateforme bii di FIT nag mujjee nañu reculer soxlaatuñu di ko càmbar ndax bés bu tasaat Sénat annulé élection présidentielle li ñu jëm xam nag situation bi fi réew mi toll askan bi ne nu sonnee ak ñi ñu xiifee marko bëgg changement ñenn ñi nekk ci biir kaso bi jafe-jafe yi moo tax parti politique yi nekk ci biir fit yépp daal di reculer ne bëggatuñu cour suprême la di càmbaraat mel te pourtant tey jii nag lañ ko waroon a càmbar du cas bu nu gaawul moom ba cour suprême tracé ba kase nag décret bi mooy élection yi moom dootul amati amul parrainage amul ay dossier validé ak ñàkk validé élection yi ci boppam la ñuy reporté <laughs> politique daal kenn xamul lan la rek nag yàlla baax na bokki ko di leen di abonné ko bàyyi xel seen seen youtube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah